뭐라고 해요?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 auditeurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan itam ci jant bi TV su ko defee nam wax ñu lan mooy taxawaayu Ahibaahil Khadim tey fii ci Daaru Nahim rawatina fii ñu leen fekk tey ci waañ wi sëñ Mourtada. asalaamaaleykum wa rahmatulah si Abdoulaye Samb ñu ngi lay ziare di ziare mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci site bi di sant yàlla bu baax nag comme noonu ko ko waxee te yàlla dogal na ñëw fii ci Daaru Nahim ci ndigalu Serigne Moustapha Mohamed jaar ko ci bàyyi Serigne Diop maxtaar ak euh, soxna Maam Boussa Mbacke ci ndigalu Serigne Cheikh mu Serigne Aliou ñëw fii ci bis bi wara ànd ak ñoom liggéey bi yàlla dogal na démb si ngoon la ñu ñëw comme noonu ko ko waxee ñen ñi ñing ci jumaa ji pour topoto walu dugg ci jumaa ji mel nonu ak walu sécurité bi ak taxaway bi ñu jox ñu fii wañ ci kër sëriñ bi ñu war ko taxawé ci wañ wi nga xamné wa hibal Khadim ñing fi nek and ko ko mbooleem ñi nga ni ñoom la ko niñ ko fasiyene defet moy non nga ko waxe rek fasiyene ñew ci bis bi dal ci ndigalu sëriñ bi and ko ak sëriñ mi nga xamné wona ci jokkoona jek sëriñ bi wonu ci ñu fasiyene and ak ñom liggéey bi tàmbali nañ liggéey bi ñu ngi nii tàmbalee taal yaa ngi gis ci walu wàllu soxna yeeg góor yàlla yi. Mhm. ñu ngi ci. Mhm. ñu fas yéenee mhm. balay ñuy toll ci waxtu wi ñu koy soxla rek. lépp mën a def am ni niñ ko bëggee. yéene ji nu am daal tam indi ñu mooy. jagal bis bi ci ni ko sëriñ bi bëggee. ndax euh, ni ma ko waxee gars yi keroog bi ñu def réunion rek. bis bi kenn ku ne xam na ni. sëriñ bi ak njabootam. muy daayira bi ne ci kër gi. mënal nañ ko seen bopp mën nañoo def lépp. waaye nag diggante sëriñ Moustapha ak sëriñ seex yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. loolee rek la sëriñ Cheikh di dëggal. di di gën a gën a gën gën a yàgg a yàgg moo xam ne léppam kër gi la moom boolee njabaru daaru xudóos gi rawatina kër sëñ Mbàkke Soxna Lo ak sëriñ Seex loolee rek lay lay lay a moo waral sëñ ma wooñu fii ñu ñëw ànd ak moom liggéey bi ni mu ko defewoon ci ubbitey jumaa yi euh, Tindo Dija la ko defewaat ñu fas yéene daal ànd ak ñoom liggéey bi ba lépp loo xam ne joxoñ nañ ñu ko ci daal ñu def ko nañ xam ne noonu lañ ko noonu lañ ko bëgg incha allah ñu ngi koy gërëm bu baax sëñ Mortada Kare di jëwriñ ci waañ wi nga ko waxee rek ñu ngi fi teew ci ndigalu Serigne Moussa Mbacke Mohamed jaar ci Baye Serigne Diop maxtaar mi nga xam ni moom moo jiite liggéey bi ànd ak mboole membre Ahibaahil Khadim ñii ñi ngi ci waañ wi ñeneen ñi tam ña nga ci organisation ba ci feexi Serigne Touba ci barke borom dëkk bi di Cheikh Mahamadul Moustapha mbokk yi kon dig daje incha allah ci kanam ci yeneen image incha allah